est-ce que est-ce man mën naa ko woy nii sans musique sax. Ah, bàyyil ma woyal la madame Bonoroi ah, bàyyil ma woyal la xooluma keneen fees naa sama seetu jigéen ji waxe jëf du am jotu tontu doon awo di buru kër gi du waay fontu te sax fu ma moomee la koy wàcce lu des mën a be ngi ci kaw ñaari fan yu ne ko ko fëgg aljana taxaw bonheur fi wax amul cuuraay bi riir def lu tax muy sedd te may jég piir peese sama bopp xam ne waru maragal wucce laajal mon cœur kuy madame bonheur xooluma keneen fees naa sama seetu jigéen ji waxee jëf du waam jotu tontu doon awo di buru kër gi du asalaamaaleykum internetu Sénégal bu rax tey ñu dem ñëw seet si nag koo xam ne dootuñu ko présenté génne fi singal yàggul mu ngi toj instant bi internet beeg tiktok aji nuyoo waaw asalaamaaleykum Aida maa ngi leen di nuyu di rafetlu torop seen teewaay fii tey di nuyu mbokki internet euh, yu Sénégal yi ñuy seetaan fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna bi. Mhm. di nuyu aussi fans Adiouza yi fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna di nuyu waa Sénégal yëpp di leen baalu àq rek di leen wax déwénate ci korité bi ñu jógee nii. Mhm. alors man aw moon chance euh, madame Bonheur ba mu ñëwee ba mu génnee ma ñëw interviewé la te def naa sa samay remarque man tamit voilà aw moon chance boobu xëy na foofu lay commencé parce que deux singles nga génnee euh, récemment euh, madame Bonheur nekk loo xam ne nag it la moom loolu moom kenn dootu ko werante tube la it la gars yi bëgg nañ ko alors nu la nu la dikkee déjà tour bi ku ko gis da ngay seetaan clip bi moom. <laughs> Euh, inspiration rek la inspiration la woon boo xam ne ni ak sama expérience mariage et tout je me suis dit pourquoi pas comme sénégalais yu ci bëri euh, dañuy dund ci polygamie kër boo dem benn ñaar ñett dinga gis polygamie am na fa pourquoi pas ma def benn son boo xam ne je vais traiter de la polygamie donc noonu la madame Bonheur dikkee euh, je vais dire que sax texte bi moo jiitu titre bi dañu bind texte bi ba mu pare euh, ci biir texte bi bi ñuy commencé di wax yaay yaa may bonheur yaay ki may bonheur ci lañ ci laa nee donc nañ tuddee son bi madame bonheur parce que ça sonne bien madame bonheur ça sonne bien à l'oreille noonu la madame bonheur bi juddoo mais ça parle juste de la polygamie d'une première dame et d'une deuxième dame ku ne naan maa man la sama jëkkër gën a nopp léegi ku ne rek euh, idée bi idée général bi mooy nañ leen euh, dund ci jàmm même dans la polygamie et dans le respect ku ne respecté sa mborom ku ne dox sa waar def li nga war a def doon sa aaw bopp sa ñaareelu bopp sa ñetteelu bopp sa ñeenteelu bopp daal donc conseil boobu laay joxe ci madame Bonheur donc du ruube entre aaw ak ñaareel. ah <laughs> du ruube entre aaw ak ñaareel mais plutôt. pour euh, rassembler leen na ku nekk gérer sa boor daal. sa boor waa d'accord alors clip bi génn nag def succès est-ce que xaaroon nga ko déjà. ah euh, oui texte bi dafa neex si si si texte bi texte bi dafa neex texte bi dafa neex donc xam nañ ne. xam nga booy non non texte bi bu te xam nga texte bi bu c'est accrochant c'est accrochant le texte déjà même balaa ngay wax musique donc ma ciy remercier tam ki bind texte bi muy Kourouma yi moo presque mën nañ wax sama it yëpp moo bind texte yi depuis maalo noppetu moo bind it yëpp moo bind texte bi donc moo ko ciy gërëm bu baax parce que c'est un travail de très longue haleine day ñëw fii sama kër ñuy bind di effacer non changer bii non dugalal bii bindee ko nale bëgguma ñiy gisee ko nii bëgguma donc dañuy liggéey maak moom ay mois i mois je je peux dire même dinañ nekk trois mois ci benn son di ko bind trois mois donc du loo xam ne dañ koy bind vite fait nii rek chaque ci biir mélodie bi am na am na am na am na lu muy signifier am na sensam donc dama ko ciy gërëm di ko di ko remercier moom tamit ci liggéey bu nice bu mu nekk di def muy Kourouma Dioumbory. Mm-hmm. Mm-hmm. Sénégalais comme question bi ñu ñu ñu jël woy bi nag approprié ko. Mm-hmm. ku ne wax sa parti nee nañ nag. yóbbante bi ñaareel yi nga faral xaw ma woon ñaareel nga woon xaw ma daal mais ñaareel yi nga faral nee nañ foofu moo gën a neex ah bon parti awo pourtant awo awo bi neex na de parti awo bi neex na de ah ñaareel bee la dàqal yow ah man sénégalais ku nekk daal da ngay retrouver wu yow sa parti awo parti awo bi tamit neex na xam nga awo c'est la base awo na la jig lañu wax wala awo jigéen loolu la neex ngay def tamit donc yooyu yëpp essayé nañ ko dugal ci biir chanson bi ñaareel dañ naan ñaareel xaritu jëkkëram donc comme la société sénégalaise ni mu tegee rang yi rek noonu noonu noonu lañ tegee son bi au fait favoriser woo benn non wu ma benn aawo moom na la jig aw bu la jigee ci ngay doog a euh, nekk à l'aise pour dem wuti keneen mm-hmm. ñaareel nag mooy xaritu jëkkëram tamit ça c'est une réalité boo xam ne traité nañ ko ci son bi donc noonu lañ traité son bi sans commune mesure comme idéologie sénégalaise euh, mythologie sénégalaise ni ñu gisee Euh, polygamie ñu noonu lañ traité sujet bi sans favoritisme. Mhm. Mhm. waaye ruube nga tuuti nag. ah bon nan laa ah. ban mooy ruube par exemple. premier couple bi ak deuxième bi. Ah. doo xaw a kii de. waaw ah. xaw a kii nii. pour non pourtant nag pourtant pour clash de. non du du clash du du woyu clash ci man. ni ma ko concevoir yaa way bi génn na su am na succès mais am na polémique. mais bien sûr bien sûr na polémique forcément. forcément xam nga day am polémique parce que. aw ah yi dañuy défendre seen position ñaareel dañuy défendre seen position am na benn sama bëggeen maman <laughs> maa ngi koy saluer de passage daf ma ne Adiouza woy bi neexoon na ma trop dama déglu man début bi kontaan foog ne aw ah yi ngay woy nga teg ci ñaareel damaa couper son bi <laughs> yeggali ma son bi du ma yeggali son ba tey <laughs> tellement am na ñoo xam ne supporté wu ñu wujjee des des des trucs de ce genre mais. fait fait de société la boo xam ne mi ngi nekk fii ñun jigéen ñi on le subit donc on est obligé d'accepter ça parce que suñu religion moo ko permettre góor yi en quelque sorte. Euh, fi may jeexalee nag mooy clip bi clip bi nag ñeneen sugar daddy yi moom nga jël sugar daddy yi xam nga sugar daddy moom nga ma wax mooy lan. paa yi non man xaw ma sugar daddy xaw ma sugar waaw léegi mooy benn paa bi nga <laughs> jël ah, ci mooy paa boole ko xale yi daal ah, ah. xam nga loolu phénomène la nii dafa xew nii non dama xam ne ne casting bi nu mu demee woon loolu nga bëggoon wane wala non non non pas pourtant casting bi c'était pas idée bi idée général bi c'était pas def montrer sugar daddy non c'était de montrer un homme responsable boo xam ne il a il peut prendre en charge deux femmes un mais pas idée wu sugar daddy bi. boobu beneen thème la boo xam ne man da nga dégg yooyu non non boobu beneen thème la parce nga ko. waaw wayoon naa ko c'est 7 à 77 ans wayoon naa sugar daddy ba pare. mais boobu beneen thème la sax <laughs> nañ ci ñëwaat ci biir album bi. <laughs> alors waaw <laughs> bu beneen thème mm. nag ci deuxième single bi temps yi nag euh, mooy mooy mooy bomb. oui bi nee nañ aji direct nag laa lay wax dangay ngay gaaruwaale. la mu nekk nag affirmé nga sa bopp. léegi léegi yow samp sa ndënd. <laughs> yow dawatoo du àjji nag kalm xam nga. ndeysaan kii nii. Ah. xaw nga indi tuuti pànk. ah indi tuuti pànk nga yaakaar. ah damay laajte. pourtant indiwuma tuuti pànk xam nga son bu nekk ak ni muy ñëwee man damay faral di wax musique lu ma laaj dama koy dama ko koy jox. à part bien part bien sûr nudité nudité musique lu ma laaj dama ko koy jox donc euh, ci son bi. niñ ko composé ak euh, ni mu niñ ko ni mu formé woo texte beeg tout dafa amoon tuuti ego trip bu ñu waxee ba pare ci kii nu mu tuddati ci ci ci noon yi ah papato mooy bojo bojo mooy noon yi quoi ñi nga xam ne dañuy passer tout leur journée waa commère yi voilà très bien mooy ñi nga xam ne dañuy passer tout tout leur temps di wax ci ginnaaw nit pendant que cette personne la elle travaille yow nga jël sa temps rek toog di wax diw de nii diw de nële diw moom gis naa ko fële xaalisam bi diw fële la ko jëlee de da doon jaay dorog moo tax jigéen ñi da doon cagatu moo tax moom xaalis xam nga nga toog ci ci ci ci ci ci ci deru nit nekk di ci wax tout la journée au lieu nga dem yow jéem a xool noo avancé noo évoluer mais nga toog ci deru nit nekkatul phénomène la boo xam ne on le voit on le voit souvent dans notre société. donc loolu laa bëggoon traité loolu laa bëggoon traité moo tax ñu ñu ñu ñëw ci papato wax ci noonu ba pare dawal tuuti ego comme style bi trap la woon drill et salsa. salsa donc voilà voilà moo taxoon ñu ne ñu daw bi ñu ci dawalee ego trip ñu ne nañ def queen bi au lieu de sëriñ bi parce que texte bi à la base bi muy ñëw man maay sa sëriñ lañ ci defoon kuruma ñu ne ma xam nga jigéen mënoo ne man maay sa sëriñ mm. donc ay question de syllabe moo tax queen ñëw ñu def queen bi ngay laajte kan la boo ko xamul question de syllabe la sëriñ bi mënuñ bëgguñu woon utiliser sëriñ parce que jigéen du ne maay sëriñ moo tax ñu def queen mais bu doon man ak man rek je je n'allais jamais mettre parce que du du du sama style di di waxee noonu mais musique moo ko laajte woon ego trip la woon musique moo laajte def Queen moo tax ma def ko. Mm. Mhm. expliqué nga pare. aji nee nañ pour direct. Mhm. musique bi jigéen ñi xam nga ni yéen. xamoo mhm. leen kii jubóo kii day dem fii kii wax nii. kii maa fi aay kii maa gën a kii. waaw nag mais am na ñoo xam ne xaw nañ leen woowee Queen fii. wala jur seen bopp ay kiwin. ah bon ñan lañ fi woowee kiwin. a ah, ah, man dégguma ko xam ne dañoo ñoom dañ ñaan ñoom ñooy kiwin bi. Uh-huh. yow nga ñëw détrôné. ne non non mosuma gis ñun ci suñ milieu boobu. pas milieu hip hop de. mais est-ce mais ci jigéen ñi mosuma dégg yaakaaroon ne way bi dina vexé sa moroomu jigéen. non man mosuma dégg jigéen buy bu ñëw Sénégal naan man maay queen mosuma kaa dégg boobu. ci woykati mbalax yi man son bi moo ko laajoon comme ni ma la ko expliqué sëriñ la ñu waroon remplacer. par beneen mot on a trouvé queen ñu dugal ko ci jeex na mais loin de la ci man sama esprit de de concurrence man bokkuma sax dugguma sax ci yooyu ay concurrence mais musique bi dama ma ko laajte woon rek musique bee ko laajte woon ma ma def ko mais loin de la ci man ay idée concurrence ak concurrence ak diw ak diw nekkul sax sama style en quelque sorte booy xool aussi euh, même bu ñuy wax ay kaay leen jël tel raaya ay décoration jox meilleur artiste yooyu man du ma sax dem bañ naa ko ba du ma dem parce que esprit ci man musique du du concurrence du du équipe de football du du làmb diw contre diw man gisewu ma noonu musique du làmb du diw contre diw donc ku nekk day bay waaram ku nekk am na public ku nekk am na ku ko fan donc du diw contre diw donc gisewu ma noonu musique donc mm-hmm. esprit de concurrence boobu nekkul ci man donc comme ni ma la ko waxee style musique bi moo laajte woon waxin boobu. waxin boobu moo tax ñu bindee ko noonu texte bi ko. sànniwoo traite kenn tamit. non non non loin de là. mën naa ko mën naa ko mais comme ni ma la wax est-ce que yaakaaroo tamit dina leen vexé ñoom jigéen ñi. non non bu ñu déggee sama explication du vexé kenn. <laughs> non gaw ma gaw ma dina vexé kenn. léegi nag dundoo loo xam ne rek wax dëgg yàlla comme ni commérage beeg yooyu noonu. ba dund ko ci milieu si si voilà voilà e, exactement là dañuy ñëw ci temu ci sensu wéy bi carrément sensu wéy bi carrément ce n'est même pas di wax di di clash du sax clash sensu wéy bi ça parle de noonu en quelque sorte xam nga noonu euh, noonu biir am na noonu ci biti am na man su ma demoon bay wéy tey ci wéy bi man je parle plutôt de de de noon yi nga xam ne soriwuñu la parce que ci man noon noon bu la sori mënuloo dara en quelque sorte mënalu la dara mais noon bu la jege moo dangereux c'est très dangereux. oui oui noon bu la jege. dafa euh, ba bu nekk sa entourage dafa c'est c'est très dangereux parce que day xam say force faiblesse la totale il sait tout de toi noonu bu la jege moo moo dangereux parce que ñun xam nga voyager nañu dem nañu en France gis nañu ay mag buy dàq raqam ci seddaay bi loolu gis nañ ko en France soxor weesuwul loolu gis nañu en France rakk buy dàq magam ci seddaay bi génnee ko këram xam nga yooyu yëpp day am c'est des phénomènes yoo xam ne c'est c'est bon léeg ñu rappeler ko c'est bien ñuy woy mbëggeel tout le temps mais léeg-léeg il faut ñu dugg ci phénomène yoo xam ne day day tardeel société day tardeel société lijjanti viwu jàmbur lu bëri nekk ci deru jàmbur day tardeel société je pense euh, il faut plutôt ñu encourager les gens euh, ci ci ci liggéey jéem évoluer sa développement personnel man man man loolu laa gën a gën en quelque sorte que que que noo nekk ci ñit di perdre sama temps di wax ñit wala di xool li keneen def aw ma sax jot boobu donc euh, son bii daal ça parle vraiment euh, phénomène boobu phénomène u jëw phénomène commérage léegi yow est-ce que dañ ne mës a jëw jëw xam ne ci milieu musique musique bi waaw bari na fi ah. milieu moo la gën a métti nag. <laughs> nga dégg ko daal mënoo koo supporter Euh, wala wala wala wala ay coups bas pas forcément jëw wala ay coups bas quoi ñoo xam ne ne dañ lay mettre des bâtons dans les roues pour euh, pour pour yàqal la yàqal la dund nañ ko ci suñu milieu mais du ma nekk fii di lamenté wu parce que man ah, mais wax ma rek benn boo xam ne nañ ko du lamenté wu non du ma lamenté wu génnee nag wax dëgg yàlla ñu bëri euh, posé na wuñ ay questions si si si xam nga lépp xamee ko woon dëgg la dëgg la c'est vrai am na am na lu ko waral lépp loo gis quand Euh, maa ngi bëgg a yàgg ci musique bi def naa dix ans et douze ans léegi xaw ma onze ans donc nekkatuma xale ci ci musique bi donc il y a des choses yoo xam ne da nga koy gis et avec le temps donc di nga gis les vrais visages dañuy dañuy apparaître les vrais visages surtout dans le showbiz c'est c'est pas c'est pas des fois c'est pas trop cool. c'est pas trop cool waaw c'est pas trop cool da ngay gis ay coups yoo xam ne li nga leen di gis nii. wala nga dem dem si benn partenaire ñu si si y a des même. Ah, surtout showbiz non non du ma non du ma ma lamenté wu mais. mais y a yoo xam ne ça fait ça fait mal léeg-léeg da ngay am da ngay am mal-être da ngay dem ba léeg-léeg da nga naan est-ce du ma bàyyi sax benn yoon est-ce que bàyyi benn yoon parce que lii lii jaratu ko xoolal kii xoolal xeex bi di wax na di di wax na li da naan des fois da dem ba ne est-ce que du ma bàyyi mais da ngay xam ne ne àdduna fépp foo dem noonu la. benn millier yombul benn métier yombul foo mënti dem rek y aura y aura des gens qui son avec toi et des gens qui sont contre toi donc nul n'est unanime nul n'est unanime dans la vie c'est gën gi mindeef sax unanimul donc du du man maay jéem a viser l'unanimité mm-hmm. donc loolu tu vis avec tu tu l'acceptes et tu te bats tu te bats pour tes nga fighting pour sa développement personnel nga fight pour sa évolution man loolu laa gëm. kon yow su ma mënee jàngat li nga wax mës nañ la def loo xam ne jaral na la nga woon nga toog nga dem damay bàyyi musique. ah oui forcément forcément carrément carrément. yow aji mi y' a y' des humiliations des coups yoo xam ne sa a été dur ça a été dur dur dur dur dur. waaye ah je l'ai surmonté. <laughs> non y' a eu des humili ah suñu milieu bi yombul de y' a eu des humiliations yoo xam ne da nga koy subir ah t'as t'as envie rek d'arrêter quoi mais. da ngay da ngay taxaw da ngay taxaw et tu l'affrontes et puis la vie continue ça passe. la vie continue ça passe moo tax waxoon na la tuuti il faut nga am tuuti pànk tamit yow da xaw a kii reetaan noppi est-ce que du moo tax nag du la porter préjudice un peu. <laughs> Ah, <laughs> de l'eau qui dort la ñuy wax méfie-toi de l'eau qui dort calme naa trop mais quand il faut se faire respecter quand même je me fais respecter mais calme naa trop mais s'il faut dire non dama la naan non. non c'est non mës a humilier moo la ko def wala télé. non non jarul may dugg ci détail yooyu. waaw waxal rek ku la mës a. non jarul may dugg ci détail yooyu. Mm. <laughs> non non non nee naa la du ma nekk mukk fii di lamenté wu. je vais pas me lamenter ci devant devant tous les sénégalais non. d' accord bi tamit euh, avant ñuy ñëw ci sonorité bi parce que salsa bi ñu. Mm-hmm. am na kenn koo xam ne maa te bi yokk ko mu ni ma non kii du nit kii dafa kii da nga koy da nga koy déglu xam dafa jàng musique chaque jour way bu mu génnee rek <laughs> dina am évolution dina am ci yokk hmm. euh, mais nag balaa balaa may ñëw ci loolu hmm. solo bi ci clip bi hmm. aji oui tàngal ngox ba mu tàng. ah bon <laughs> yaa déedéet du wax ah bon de <laughs> xam nga ni sax. xam nga wax naa la ko wax naa la musique lu mu laaj dama koy def. clip bi tàng na jël déggoo lu ma la wax musique lu mu laaj dama koy def sauf nudité pourtant clip bi tàngul la ah. hmm. nu mu tàngee dafa tàng yow lan nga fa gis lu tàng. poitrine ah. <laughs> ah gis naa ko wax de yaa wax mu tàng ko nag. xam nga yow <laughs> xanaa yàlla ma nattoo poitrine damay. Ah, yàlla ma nattoo du poitrine da fa gis. yàlla ma nattoo poitrine nag. <laughs> nee ma ne ko yàlla ma nattoo poitrine mais mais mais si tu vois pourtant y a y a des. ah mais y a des tenues a des tenues traditionnelles y a des tenues mais pourquoi vous n'en pas dans le clip y a du tout. y a du tout y a des tenues trad y a a du tout moom laa la. arrivé à l'heure ñun intéressé wu ñu beneen bi mooy <laughs> bilay hmm? yéen yéen yéen titre ngeen di wër yow titre ngay wër yow. titre titre ngay wër <laughs> ah bon am nga titre. <laughs> titre bi am naa ko bu yàgg mais mais mais nee nañ nag bi paa moom da nga da nga xaw a kii nag sexy nag wax dëgg yàlla. ah bon est-ce que gënu ma woon sexy ci madame Bonheur laa yaakaar madame Bonheur aussi c'était vraiment sexy. est-ce que gënu ma woon sexy ci madame Bonheur. que clip bi non bii xam nga nga ànd ak arñi ñëw. être peut-être loolu la peut-être arñi bi moo ça change quoi. Adiouza change vraiment de style. peut-être peut-être peut-être loolu yëpp da ciy joué aussi. ni ma ñëwee waxee ferme. ferme ci li may wax et waa waaw ferme ci li may wax et tout moom laa la wax style bi la rek. man musique lu ma la euh, wax mu laaj dama ko koy jox. à part nudité. yi de nee nañ ne clip bi aju <laughs> saa gis naa suñu woo xam ne. ah ñu ah, paree rang nañ de. ah rang nañu. ah du ñu rang woowuñu la yow. ah non man kenn woowuma de man man kay kenn woowuma. aji woowuñu la. ah déedéet kenn woowuma wax fa ah, dëgg. man di am na kon dañ laa xaw a ragal a woo. Ah, <laughs> ñu ñëw ci bi nag euh, musique bi. oui oui. salsa. Mm-hmm. mière yi mën nañ ko fecc. Hmm? Mm-hmm. lan moo indi originalité boobu noonu. ba originalité bi l'idée est venue de moi encore. parce que son bi bi ma koy bi ma koy dégg pour la première fois vrai trap la woon trap pur et mais xamoon naa ne man comme aw ma ay notion ci trap su ma duggee ci trap pur et dur euh, nañ ma ree du sama style hein du sama style du ma ci nekk à l'aise tamit te pas à bi ma déggee son bi en première xam naa ne son bi amoon na potentiel mais trap pur et ça ne va pas m'aller mm-hmm. donc euh, ma ma fàttaliku ne rappelé na def naa variété mën naa salsa ma ne pourquoi pas ñu essayer salsa et trap noonu la idée générale waaw waaw noonu la idée général bi demee après ci laa woowee sama benn sama benn booy boo xam ne xumaan moo ko présenté maa ngi koy saluer de passage muy Omzo mm-hmm. Omzo bi ci laa woowee Omzo ne ko Omzo daa benn style bu ma bëgg ñu ñu rechercher un peu Euh, gisaguma nag ngeen koy xaw a yaboo leen ko torop mooy salsa trap bi damay gis Amérique latine ñu koy def lu bëri euh, est-ce que est-ce que mën nga ko def dama ko doon seetlu mu ne ma waaw man sax am naa ci ay affaire yu ma ci def yu bëri après ci la ma ko dégluloo ma ne ko très bien voilà lii laa bëgg nag ma ne ko defal ma salsa trap après ñun on va arranger le reste après ci la ma defaree salsa trap bi e puis ça sonné c'était hyper rythmique mm-hmm. maa ngi koy féliciter de passage muy un jeune talentueux Omzo Beat Euh, muy un jeune talentueux maa ngi koy félicité ci la ma defalee salsa trap bi et puis c'était dansant et tout ma ne waa lii léegi mën naa ci poser loo xam ne nii dina xaw a nekk salsa mélodie bi dina xaw a nekk salsa hip hop trap voilà ci laa décidé def loolu noonu la idée musique boobu ñëwee je voulais juste être à l'aise te je savais que bu amoon tuuti touti sonorité salsa je serais plus à l'aise que bu nekkoon trap pur et waaye waaye son bi nag gàtt na 2 minutes 44. exact. exact waaw waaw on on avait dit tout ce qu'on à dire <laughs> te xam nga genre son yooyu au fait dafa am euh, dafa am nuñ koy composer day am ay partie A B A buy ñëwaat B buy ñëwaat dafa am nuñ koy composer en quelque sorte donc loolu mooy nekk di répété waat rek donc bu répété wee deux fois après y avait plus euh, rien à dire mënoon nañ ci yokk leneen bu ñu neexoon. mais man j'avais du di tout ce que j'ai à dire ci son boobu donc saamale voilà saamale mu yem 2,45. <laughs> alors <laughs> ci ci ci clip bi toujours ma ma ñëwaat ci solo bi yaa ngi wax euh, côté côté traditionnel bi ah tamit nice ni ko mm. defee ak yooyu noonu fallait que nga boole ko ci clip bi waaw waaw waaw parce que damay faral di wax man lépp lu may def rek di boo seetloo boo seetloo di nga gis traditionnel ak sénégalité mm-hmm. boo seetloo clip yëpp lu ma moderne moderne moderne dinaa xaw a même bu dee benn solu lay doon ci clip bi ma sol ci sénégalaise pour wane ne je suis vraiment une sénégalaise pour jaay aussi stylisme Sénégal donc boo seetloo sama clip yëpp rek répertoire yëpp clip boo mënti gis rek di nga ci gis bu dee benn solu sénégalaise dinaa ko ci solu pour wane sama sénégalité looloo taxoon. Euh, ci clip bi tamit ñu wane la sénégalité parce que solu nañu solu salsa solu nañu solu hip hop et tout xale yi solu nañu hip hop et tout mais ma ne leen il faut ñu def une touche de sénégalité boo xam ne képp ku ko mënti seetaan beneen xeet di nga xam ne ne ça c'est from Sénégal même boo déggul li ñuy waxee tout di nga xam ne c'est from Sénégal. Mm-hmm. d' accord man nag euh, clip bi euh, way bi du mas mm. benn benn partie moom si gën a neex. mais yow yaa ngi papatoo rek waxatoo ci beneen. ci ci ci yéen beneen bi non man way bi ba tey fa laay toog de. <laughs> am na benn benn benn parole bu ma neex. ñàngalu gi daal lu ci yoonu paaka <laughs> ku la jox boobu. xanaa kuru. <laughs> xam nga ne man du ma waxee noonu. waaw <laughs> yaa gën a xam ne duma ma waxee noonu. Mhm. donc Rouma Ndioumori moo bind kaay nga wax ma njàngalu ginaar lan moo si yoonu paaka. Mhm. donc wax ji ngay wax yépp ça veut dire pour résumer waa euh, faalewu ma wax ji nga nekk di wax teg sama dernier yépp don't care quoi. ça veut juste dire ça. alors deux mm. singles yuy marché. Mm. lan mooy suite bi. ba c'est c'est des singles yoo xam ne ci album lañ nekk. Ah, ci album lañ nekk ci album nekk d'ailleurs sax. je vais en revenir madame Bonheur moo ñu yéexal parce que dañu def madame Bonheur Pak Pato pare na depuis octobre octobre 2020 le clip bi pare. Mhm. mais dañu génnee madame Bonheur novembre madame Bonheur euh, def it voilà te it kenn du kenn du jékki-jékki rek tegaat teg dara ci kawam quoi. moo tax dañu toog xaar six mois après. ñuy doog a génne deuxième single mais y a troisième single qui est déjà prêt aussi. madame Bonheur moom bokk na ci clip yu gën dox. moo tax nag moo tax on pouvait pas. moo tax album moo tax <laughs> moo tax album bi yéex a génn madame Bonheur moo ñu tënk ba album bi génnagul. parce que comme it la donc munuñu woon ñëw rek euh, génnewaat beneen ci kawam noonu rey ko mu dee donc on a attendu six mois pour doog a génnee euh, beneen. te am na beneen troisième buy ñëw balaa album bi war a génn incha allah donc madame Bonheur. moo mais bi da doon moment bi est-ce que xaaroo Viviane génnee sa dictée yi dem après yow nga ñëw ne xaar ma ñëw dolli man tamit. <laughs> déggoo lu ma lax wax papato pare na octobre barke yàlla yow. yaa dàq ruube Sénégal. ah Viviane journaliste yi ma xam yëpp yaa ci dàq ruube. Viviane génnee sa dig léegi nga ñëw ne ko xaar <laughs> mais mais ki ma mën ruube. <laughs> fu mu nekk nii bos Viviane Viviane nga baal ma nag mais déggatul ko mais waxoon dëgg parce que parce que parce que waxoon li ngay wax ni dara ah, tegu ci yow da ngay ruubee yow clip bi yow est-ce que xaaral yow xam nga ah, man dooma am man dooma am parce que Viviane sama xarit la Viviane est-ce que xaaroo ba mu génnee Sadik lay dem ba pare déggoo li ma la nga ñëw nga nga nëpp nga bëgg koo nëpp Viviane sama xarit la Viviane sama xarit donc Viviane moom dañuy déggante téléphone xajoo suñu diggante. man xajul lay boolewu xajoo suñu diggante ngay ruube nii. waaw boolewu ma leen de. non non non du wax comme ni ma la ko waxee. pap euh, Papato pare na depuis octobre 2020. billaahi wallaahi tallaahi depuis octobre la clip bi pare. te yeneen clip bi troisième bi tam pare na depuis décembre 2020 donc 2020 yëpp durant corona bi. Ah, dama ci liggéey non dama ci liggéey dama ci dama ci euh, dama ci liggéey lu bëri. d'accord xam nga toppandoo. toppandoo toppandoo mom c' est bi sax nee na <laughs> ah bon mais kan moom moom sexy kan moom moom kan ah bon j'ai pas lu ça. j'ai pas lu <laughs> yow kay xam naa da ngay <laughs> ruube. xam naa da ngay ruube xam ne non non non je je pense pas Viviane Viviane je l'aime je l'aime sama sama sama la je l'aime beaucoup mais voilà mais ku nekk ak sa style quand même ku nekk ak sa style man euh, bi yoon Papato par exemple salsa la ma dégg Viviane def salsa par exemple. mës nga gis single bu mu defee salsa salsa la trap donc ku nekk ak sa style daal man moom je veux diversifier bëgguma nekk ci même style afro afro afro tout loolu du du sax sama style. du mhm. sama univers. tey mën ngeen ma gis afro suba mbalax gannaaw suba acoustique gannaawaat suba reggae fu ma neex dem man je voyage musique moom dama ciy voyage ni mu ma neexee. kenn du ma tënk ci benn style musique. d'accord. kon album bi kañ lay waaw album bi tamit univers yu différent la. Hmm. single bu nekk bokkul ak moromam style musical. single yi boo ci dégg benn bokku ceeg sa morom single euh, univers musical donc ku ci nekk rek. mais nag nañ gëj nga mbalax mbalax mu sax bi nag. waaw waaw mais mbalax bi mbalax sax am na ci album bi. mbalax am na ci album bi. donc bokk na ci yu ñu war a clipper dañuy mbalax album bi am na mbalax am na style yëpp daal. Hmm. différents univers la. yoo xam ne dañ leen dajale ci album bi donc euh, on, on va dire que voyage musical lay doon donc du benn boo déggee benn style de son rek dégg nga xam nga yeneen yi ci topp yëpp donc voyage la yoo xam ne gaam yi bokkul style musicaux yu bokkul dara dara dara bokkul daal bëri na ay univers yu différent ci biir album bi incha allah nag ñoo ngi ci pour la sorti de l' album yàggatul normalement bu troisième single bi album bi day génn ak le troisième single incha allah Mm-hmm. ah ubbi nañ porte yi ubbi nañ lépp léegi doy xaar pour grand théâtre ak mais jeexul woon de. ah c'est c'est vrai c'est vrai ubbi nañ porte yi d'ailleurs sax là je euh, j'en au programme il y a yoo xam ne ñu ngi leen teg nii laa laa laa laa le 18 juin war nañu dem Nirvana mm-hmm. pour tamit dajewaat ak euh, diine spectacle lay doon. pour dajewaat ak euh, melomaan yi ak fan si et ñi nga xam ne géej nañu gis Adji Sarr sur scène sur la scène parce que scène bi tam ci la bokk nag mm. scène bi ci la bokk ñu leen di jox rendez-vous rek le 18 juin Nirvana na ñëpp ñëw bu ko kenn tardé ça vraiment loo xam ne ne retrouvaille la yoo xam ne géej naa gëj naa yeeg scène vraiment retrouvaille lay doon daal maa ngi invité Sénégal yëpp. Mm-hmm. yi. waaye gars yi ñu ñëw. gars yi ñu hmm. ñëw. <laughs> yow dimbali moo wax. xam naa ne bëggoo ko. bàyyi ko de sa question. gars yi ñu ñëw. porte bi wala. non non yooyu question. da ba tey non moom duma ci wax nag wax fa dëgg. non hmm. non. intéressé ah, ay question waa du xam nga xam nga ko yàgg nga ma interview du xam nga yàgg nga ma interview ak ah, xam nga ne am na question yoo xam ne duma la ci tontu jamais du ma ci tontu jamais voilà question de homme mari femme loolu duma ci tontu jamais. Hmm. Hmm? da ngay sa bopp rek. xam naa loolu <laughs> voilà maa ngi leen di remercier bu baax di la remercier Aïda elle est très intéressante hmm. <laughs> comme journaliste parce que dalay wax loo <laughs> te man j'aime pas trop me dévoiler. tamit euh, don bi nga doon euh, maa ngi gis ne ah oui oui oui xoolal j'avais oublié ça voilà c'était c'était juste pour euh, pour jàppale sama fan club bi. au lieu au lieu toogaay bi nii ñenn ñi nga xam ne dañu dañu toog ma dimbali leen jàpp leen jàppale leen jox leen ay subvention mais dama leen ko lebal lebal leen ay fiction subvention pour ñu liggéey mm-hmm. jox leen xaalis ñu liggéey après bu ñu liggéeyee bu ñu paree fay ma waa bu ñu ah, paree fay ma pour ñu mën ah si dinañ fay parce dañu war a ñeneen ñi chaque dix mois dañuy financer waat ñeneen fans donc du les mêmes têtes rek ñooy jot financement yi mm-hmm. donc bi yoon financé nañu cinq dans dix mois dañuy fay pour ñu mënaat financer ñeneen ñi ci topp en quelque sorte donc looloo waraloon ma au lieu ma leen di may chaque jour. Mhm. au ñu may topp chaque jour di ma tàccu et ma ne leen aller faire des choses def leen ay mini projet ay micro projet ngeen jéem a regrouper wu en GIE. donc bu ko defee fan club Adiouza dañu am GIE léegi. Mhm. dañu am GIE maa ngi gërëm sax la président na nga xam ne yor nañu seen GIE ñu ngi def ay activités di def ay liggéey yoo xam ne da leen di générer da leen di générer ay xaalis ah ku nekk yaa ngi def yaa ngi évoluer ci domaine bi nga bëgg euh, maa ngi leen ci gërëm di leen ci encourager te di leen wax na rek je serai toujours là par pour pour eux parce que quand ñoom ñoo ma nekkal ci naaj bi donc foo ma nekkal leen fi ñoom tamit <laughs> di remercier rek sénégalais yëpp yi ñu doon seetaan di remercier internetu Sénégal yi. di remercier fans yi fépp fu ñu mënti nekk ci àdduna merci beaucoup c'était Adiouza. waaw ah, doo ñu may tuuti si kii bi. banti mënuma ko prononcer. yow est-ce que est-ce que papato man mën naa ko woy nii sans musique sax. ah kon baal ma woyal la madame Bonheur waaw baal ma woyal la. xooluma keneen fees naa sama seetu jigéen ji waxe jëf du am jotu tontu doon awo di buru kër gi du waay fontu te sax fu ma moomee zéro la koy wàcce lu des mën a daaw béngi ci kaaw ñaari fan yu ne ko ko fëgg aljana taxaw bonheur fi wax amul cuuraay bi def lu tax muy sedd te may jég piir peese sama bopp xam ne waru ma ragal wucce laajal mon cœur kuy madame bonheur <laughs> buubee <laughs> nga awa yi de <laughs> awa yi awa yi kon waruñoo mel awa yee ko yor merci si dalal bi merci beaucoup parce que Adjudara. <laughs> ok à la prochaine incha allah. merci beaucoup ma grande merci beaucoup.